maanaam julli jumaa ku mu war moom farate jëmm lay doon ci yow nga xam ne faaw da ngay dem defi ko rek sa jant war a wàcc waaye kenn mënul koo defaale nee na dem ci jumaa ji mënta ñàkk ndax jumaa nanguwul tolloole faaw rek dañ koy defee ci biir jumaa ja waaw bu jumaa ja feesee du sus ca moom ca biti ba waaye mëni su ko tolloole su ko defee nee na boo soree na ngaa war a jóg ci waxtu woo xam ne bu la jàmm rek dogee faaw nga fekkee julli ga bu fekkee da ngaa jege nag moom mën ngaa bàyyi bàyyi ba ilimaan ñëw ba ñu noot nootu ñaaral gi nit ki boo nekkee ci kër yi sës ci pénc mi sës ci jumaa ji moom bu la neexee bàyyi ba ilimaan ñëw ba ñu noot nootu ñaaral nga door a jóg waaye su boobaa itam nag jóg daal na jot moom am na sax ñu wax ne bu ci subaar jotee rek nga war a jóg dem waaye wax ji gën a wóor daal moom mooy fekkee jege nga moom mën ngaa bàyyi ba ilimaan ñëw ba ñu noot nootu ñaareel lay tax julli jumaa war la nag juróom-ñaari sart la nee na bu jëkk ji mooy nga nekk mu kàllaf bu fekkee da ngay gone mbaa da nga di ab dof su boobaa kon du la war maanaam ko amta sagoom rek lañ bëgg wax donte kuy xam la itam julli nga du ko war nee na lay tax jumaa war la mooy nga nekk gor jamono ye amee gor ak jaam kon nga nekk gor mooy tax jumaa war la waaye boo nekkee jaam bu sotti mbaa laal nga ci njaam ni ki kuy jot boppam te àgg na gudd mbaa kuñ gannaawal yoo xam mu dabbar kuñ gannaawal mooy ku ab sanga wax ne ko su ma deexee gore nga mbaa kuñ goreel lennam bàyyi lennam mbaa kuñ goreel jëm ci délai délai délai ba ñëwagul yépp laal nañ ci ngor waaye du tax julli jumaa war leen teewul nga sopp nañ jaam bi bu ci amee ndigal mu dem julli ji jumaa buñ nee jaam bi julli jumaa waru ko mbaa te laal ci ngor te mëtalugut ak ak ngor julli jumaa waru ko du tee koo ci def rek mu daal di wecc sa tisbaar du aajo ngay def tisbaar boole ca boo ko jullee rek mu daal di wecc sa tisbaar ca bis booba jigéen julli jumaa waru ko góor rek la war wax ne sax bu dee ndaw lu jigéen loo xam ne dañ caa ragal ne bu teewee dana fitnaal góor ñi sax day araam ci moom mu dem bu fekkee ndaw lu jigéen la te ragaluñ ca fitna nag dañ koy sib rek yem ci bu dee maagat mu jigéen boo xam ne góor ñi geesooruñ ko nag moom dagan na mu dem julli ji jumaa dagan na mu dem ci jumaa ja lay tax jumaa war la mooy nga dëkk fa jumaa ji nekk mbaa nga yéene faa sax ñeenti fan waaye bu fekkee dëkkoo fi te yéene woo faa sax ñeenti fan ko jul jumaa góoru la du tee nag boo ko jullee mu wecc sa tisbaar rek
dëkke googu nga xam ne moom la tudd sartu war la sartu wér la boo ko dee seet sartu war la mooy bala ñoo saña tabax jumaa sax foofa dañuy sart mbooloo ma bari bari waay boo xam ne daañu mën a taxawu seen mbiri bopp mën naa def itam nag ay dëkk dëkkaan yoo xam ne buñ dajaloo rek mat mbooloo ñu seet ca benn dëkk ñu def fa jumaa waaye nag dañuy sart ñu dëkk dëkku ku nar a sax di wéy ci misaal ay pël bu ñu dajee ci béréb lu ñu bari bari bari wala naar yi daal sàmm ca bu njëkk ñoom du ñu sax fenn daanaka di wéy lu may rek ñu ngi fay gis ndox ak ñax mañ ñi sàmmi waaye bu ñu demee ba gisatuñ fa lañ ñuy sàmm rek daal doxu dem feneen ñu mel noonu nag muy pël yi muy naar yi bu ñu dajaloo ci benn béréb lu ñu bari bari du ñu sañ a tabax jumaa ndax dañu jàpp ni ñoom naruñoo dëkk di wéy bu ñu dogoo nag bu ñu dogoo nag dëkk di wéy nag waaw kay kon moom su mbooloo mu bare ni ñu waxoon mën nañoo tabax jumaa kon wala ñoo sañ a tabax jumaa rek na mbooloo mu bare noonu te it ñu fas yéene dëkk di wéy nga xam ne yàlla leen koy toxale waaye dëkk di wéy la ñu nar bu loolu amee ba noppi nag boo dëkkee ci biir dëkk bu moom loo sori sori rek julli si war la bu fekkee dëkkoo ca dëkk ba jumaa ji nekk nag ci beneen dëkk nga nekk dañuy seet sa diggante ak jumaa ja nu mu toll bu fekkee mi ngi toll ci juróomi kilomètre genn wàll jëm juróom benn julli si war la bu ëppee loolu nag julli si waru la ba la soobee rek nga sakku tiyaaba ñëw julli si su ko defee julli ko ajjuma ga wecc ci sa tisbaar dana àgg léegi sax ci wax la naa la bokk na ci sarti jumaa war la nga jege jumaa ja dana ko leer waaye su boobaa na nga takk foofu ne boo nekkee ci dëkk ba nga xam ne ci la jumaa ji nekk daal moom faaw rek julli si war la ak loo sori sori tax bu dëkk ba réyee dëkk ba mën naa man ay kilomètres yu bare bare boo nekkoon cat lay dutee nga war a julli si boo nekkee nag ci beneen dëkk bu bokkut ak dëkku jumaa ja ngay seet sa digganteeg jëmmi jumaa ja nu mu toll su tolloo ci juróomi kilomètre ak genn wàll jëm juróom benn julli ji war na la su ëppee loolu nag julli ji waru la bu la soobee nag nga dem julli ji sàkku ca tuyaaba julli ko ajjuma ga wecc sa tisbaar waaw nee na bu fekkee dëkkoo ci dëkk ba jumaa ja nekk lay tax julli jumaa war la mooy nga bañ koo soree lu ëpp ñetti miil ñetti miil bu fekkee ne fa nga dëkkee sa digganteeg jumaa ji dafa toll ci ñetti miil rek mbaa matu ko sax julli jumaa ga war la waaye bu fekkee ëpp na ko nag julli jumaa ga waratu la bu la neexee ñëw nag def si ko mu wecc sa tisbaar rek waaye boo xasee soree lu ëpp ñetti miil moom julli jumaa ga waratu la da ko tollool nag ci soriwaay boo xam ne buñ dee noddu te amul ngelaw lu lay tee mën a dégg amul kàddu yu soow yu lay tee mën a dégg te kay nodd am na kàddu bu baax a baax da nga dégg nodd ga noonu la ko tolloolee waaye waaye mën ngaa jàpp rek takk bi ñu la waxoon léegi ci dëkk ba nga dëkk te du dëkkub jumaa ja daal bu tolloo ci juróomi kilomètre ak genn wàll jëm juróom benn julli si war la bu ko ëppee julli si waru la ñene boo dee seet nag fa nga dëkk ndax julli jumaa war na looy waru la dañ da nga koy toll ci ñetti mil te am ñu ne da ngay seet ñetti mil yi mu tàmbalee ca jumaa ja fa soroor ba jooju wax nag moo gën a wóor am ñu ne da nga koy tàmbalee catul dëkk ba loolu na xam nga mën naa wóote loolu fu mel ne Tuubaa fa jumaa ja nekk ak catul dëkk ba gis nga na mu sore kon tàmbalee natt ca fa jumaa ja nekk ak tam natt ak tàmbale natt fa ak tàmbalee natte fa catul dëkk ba fa dëkk ba yam sore na lool lool ba ci suñu dëkk bi nga nekk rek gis nga ko fa jumaa ja nekk ak fi dëkk bi yam fii suñu gannaaw sore na wax ji gën a wóor nag mooy da ngay seet rek fa jumaa ji nekk ak fa nga dëkkee te bañ a seet catul dëkk ba ak fa nga dëkkee nee na mil dana ko leeral bu tolloo ci di wax salaatul qasri salaatul safar tolloo ci wax ji lu tukki ba mètre xewe bu daal dañ daa wax ne benn mil ñaari junni xasab la ne ni boo déggee ñu naan sa digganteeg jumaa ji su ëpput ñetti mil day fekk yow dëkk ba nga nekk bokkut ak dëkk ba jumaa ji nekk waaye bu fekkee dëkk ba jumaa ji nekk ca nga nekk moom loo sori sori rek waaye julli si mel ne boo nekkoon ndakaaru benn jumaa nekk fa itam rek te gis nga ndakaaru ni mu yaatoo xam nga faa nekk foo xam ne kilomètre yi bari lay doon du tee julli si jumaa war la wala Touba itam boo fa nekkoon benn jumaa bi nekk fi loo sori sori rek war a julli si koo xam daa tawat du mënta dem jumaa ja wala bu demee dana sonn lool coono boo xam dana jéggi dayoo kon ba tey jumaa ji wàcc na ko su fekkee daa wéradi woon waaye nag laata ñuy julli jumaa ji tànnee na talib mën a julli ji su boobaa kon julli ko daal di koy wax nee na nag sart ya koy tax a wér ci lay bëgg a dugg moom la moom la jubit wali addaaya ndax li waxoon léegi mooy sart ya koy tax a war yi nag mooy yi koy tax a wér am na ñeen sart yu tax julli ga wér ak nee na faw am ku ko jiite waaye mëni su ko kenn kennoo te ilimaan ba itam dañuy sart mu dëkk fa mbaa mu nar faa sax ñeenti fan ba jumaa ja war ko waaye bu fekkee dafa tukki si te yëriwu faa sax ñeenti fan kon julli jumaa ga du ko war su boobaa kon du ko mën a jiite nee na dañuy sart balaa julli gaa baax ñu julli ko julli mbooloo waaye mëneesu ko kenn kennoo nañ koy xewoon léegi ndax mbooloo ma sax limituñ ko ne na ma ab lim sàngam waaye nag na mbooloo ma bari bari waaye boo xam ne doy nañ ci dëkk boobee nga xam ne lu waa dëkk bay def ci tegum néegam yu demee noonu daañu ko mën defal seen bopp dañ ko wuti ñu leen ko defal bu leen ay noon songoon ñu mën a delloo noon ya ndegam du ñu jéggi dayoo ba bari loolu loolu daañu mën delloo noonu ci gannaaw maanaam daal mbooloo mu xaw a bari bari waaye boo xam danañ doy ca dëkk ba ci mën a taxawu seen bopp ci dimbalante ci lu ñu bëgg a def ci dëkk ba ak bu ñeen ñëwoon bëgg a dal ci seen kaw ñu mën leen delloo gannaaw mbooloo mu bare noonu li mu mbooloo mu bare noonu nag moom bala ñoo tabax jumaa ja lañ koy sart te bu ñu xasee tabax jumaa ji ba àggal te fekk mbooloo mu bare noona gannaaw bu ba ñeen ña toxoo ba ña fa des bariwuñu itam waaye mat nañ fukk ñaar ñu bokkut ak iliman rek mu daal doy waaye nag bala ñu tabax jumaa ci biir boobu nag mbooloo mu bare noonu nee na bu fekkee ne mbooloo mu bari woon nañ gannaaw ba ñeen ñu toxu as dem waaye ña fa des mat nañ fukk ñaar ñu bokkut ak iliman rek loolu daal nay baax waaye nag bu ñëwee ba yées fukk ñaar nag moom kon julli ga du baax say boo ñu bàyyi ko te julli tisbaar bu mebal fukk ñaar am ci ku yàqule sax kon dal nay mangi fukk ñaar kon say boo ñu bàyyi ko te julli tisbaar nee na julli jumaa balaa baax faaw ñu defe ko ci jumaa mënoo ko tolloole fa sa kër mënoo ko defe ci garabu penc mbaa ca marché ba tolloole déedéet faaw rek nga dem ba ci biir jumaa ja ba tey boo yéegee ba ci terrasse jumaa ja nga jullee ci kaw itam du ko tax a baax néeg ba ñu denc làmp yaag xeeti jumtukaay ni rajo yi yooyu ba tey boo fa julee du baax nee na bu fekkee doo ilimaan moom bu fekkee ni biir jumaa ji xat na kon ëttub jumaa ja mees na faa jullee yoon yi nga xam ne ñoo sus ci jumaa ja itam ndegam biir jumaa ji xat na rek sàppi si ñëw ba ak si foofu rek ba tey kon nan nga faa jullee waaye bu dee ilimaan ji nag moom faaw mu jullee ci biir jàkka ji ci boppam moom ilimaan ji moom bu jullee ci ëtt bi rek mbaa ci yoon yi sus ci moom rek julli du baax bu sàpp ya xasee jokkaloo ba génn ci ëtt ba rek ëtt jumaa ji rek bu la neexee yem fa sàpp ya daal jullee foofu doonte sax biir jumaa ji xatut bu biir jumaa ji xatee itam doonte sàpp ya génnut ba ca bitti itam bu la neexee jullee ca ëttub jumaa ja nga xam ne kon yooyu yaar muy jokkaloo sàpp yi ak xatu jàkk ja lenn mën naa am moroom ma bañ a am te du tee nga sañ a jullee ca ëttu jàkka ja bàyyi yoon yi ci sës ndegam doo ilimaan ilimaan moom faaw mu jullee ci biir mën da ñàkk nee na julli jumaa balaa baax ñu xutba te xutba ba jiitu julli ga boole ci faaw dana aajowoo bu ñu dee xutba fekk lim bi mënta ñàkk mi fukk ñaar teew waaye bu fekkee ba ñu xutba lim ba teew matu loolu kon du baax lu néew néew na lim ba mat loolu sopp nañ booy julli jumaa nga sol yére yi gën a rafet te neeñ mooy weex doon daa màggat tam bu dee jumaa moom nee nañ weex ka lañ ci gën a taamu taamu nañ bala ngay dem ci jumaa ja nga waaj waajtaay bu rafet niki bu fekkee am naqam am na kawar mu wat kawaru naq ga dal di lewiku lewi ay weexam ay musaasam bu guddee bëpp mu wàññi ko bu ko defee nag mu daal di fexe ba xeeñ xet gu neex mi lekk lañ bu neex loolu lépp taamu nañ ko ci kuy julli jumaa dafa tuddul nag cangaayul ajjuma waaye moom àgg na ci doon sunna suñu taamu lool lool tey soo ko defee rek nga daal di jóg wuti jumaa ja bañ a toogaat lu yàgg ni ki tëdd nelaw mbaa lekk mu ko dee aajo boo sangoo daal di jóg dem waaye boo sangoo daloo dem rek nelaw fa baa nga lekk fa nelaw mbaa lekk yoo xam ne mën naa ñàkk ndax loruwoo ca kon cangaay la day mel ni ñàkk nga ko boo ko bëggee amaat faaw nga defaat ko ba sangoo ba noppi nag moom jub daal di wuti jumaa ji rek moom boo awoon ci yoonu yàgg ca it du wàññi dara nee na bu fekkee da ngaa tawat tawat yoo xam ne mën laa dem ci jumaa ja kon jumaa ja wàcc na la bu fekkee mën ngaa dem waaye boo demee da nga sonn lool lool ba sonn coono bu jéggi dayoo ndax tawat jaa tax kon ba tey jumaa ja wàcc na la ragal googu dañ cee jublu toppatoo ku tawat wala fii toppatoo ja rek ragal lañ koy tuddee su amee sa mbokk moo xam ne dafa tawat nga di ko toppatoo loolu doy na ngànt ba tey nee na bu amee borom doole joo xam ne ragalul yàlla te ragal nga ne boo ju liggéey faaw mu nangu sa alal mbaa mu gaañ la ci saw yaram lor la ci sa bakkan loolu kon ba tey mën ngaa toog bañ a ju liggéey ba tey boo ragalee ne boo ju liggéey aw sa wara lakk sa alal li ki sa kër mbaa ab sàcc tox li gannaaw sàcc sa alal boo ragalee lu mel noonu ba tey kon julli gi wàcc na la ba tey bu fekkee da ngaa ameel ay nit bor te ñoom xamuñu ne da ngaa ñàkk defe nañ ne da nga leen fayul rek waaye mën ngaa fay ku mel noonu bu ko yoon jàppee da koy tëj ba leerlu ba xam léegi daa mën a fay te fayut wala ñàkk mën a fay ko te fay bu la wóoree ci sa bopp ne yow mii nag ne xamuñu ko waaye yoo xam nga ko ci sa bopp ne yow mii da ngaa ñàkk moo la tee fay te boo demee faaw ñu jàppale lu tëj ba xam da ngaa nangu wutu fayam déet mën ngaa fay kon mën ngaa fa toog rek yow bañ a julli ji ndax yàlla xam na sa diggante moom xam na ne yow ñàkk gi lu wóor la te boo demee faaw ñu bëgg laa tëj di gëstu ba xam loolu tax a ñàkk fay su fekkee ban bi daa bari ci yoon wi ngay aw ba booy dox muy summi say dàll muy ñaqati bu summi say dàll ba tey kon loolu ngànd la bu dee taw bu baax a baax boo xam ne boo muuruut rek daal di tooy ba tey kon ngànt la mën ngaa bañ a julli yi jumaa bu fekkee dafa lekk laaj wala mu tux tux mu naqari xet dañ koy aaye dem ca jàkka ja dem ca jumaa ja lu may na nga xam ne moom bëgg ngànt lu ko tee dem jumaa moo ko tax a lekk lu naqari xet ni ki laaj mbaa tux dañ koy wax ne kon léegi yoon da koy forcé ne ko faaw nga def lu dindi xet gi ni ki lekk lañ mbaa loo mën def rek faaw yoon forcé ko ci mu dindi xet gu naqari gi dem ci jumaa ja ndax loolu dong la bañam ba tax muy lekk lu naqari xet loolu mbaa muy tux waaye bu fekkee loo taxutoon nag bu jëlee ci xet gu naqari ca tux moom mbaa laaj kon loolu ngànt la day toog bañ a julli ji jumaa bu raflee ba nga xam ne amul lum saa ngi fa awraam ah kon loolu ngànt la ba tey du dem jumaa du dem du dem itam jàkk ju bokkut jumaa ñoo ci yemoon